بأن كان منك سليلا دي دوم دي سيد البشر نير سانغو من دفي وصاحب الأمر كي يخان مو يبرم دقلي ونهي أكتره مو يرنت بي صلى الله عليه وسلم يرنت على محمد صلى الله عليه وسلم ومن يالا جغلي مو يدقلي دي تره دي سانغو من دفي وآي خليفة هم بيكو دون مو يشيخ تجانة دلال اختاره تاننا يرنت بي وعلا تعالى كوانا خاتما wala boog yàlla tànn na Cheikh Tidiane xaatiman muy mottali lil wilaayatil muhammadiya ñeel wilaaya ak muhammadiya moo tëj wilaayatu moo tëj wilaayatu nag mooy boole may gu ballee ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci wëlli du jaar ci kenn lu mooy Cheikh Tidiane moom mooy barzaxu kulli aarifin mooy diggale bépp aarif aarif bu am may rek wëlli yu gu am may rek nga xam ko nga ñàkk koo xam sa may gi jógewut ci yonantu ñëw ci yow waaye ci Cheikh Tidiane la wàcc mu doo rek ci yow kooku mooy xaatam bi wata wax na ko ne benn wali du naan lu comme nu mottalee jadduhu maamam sallallahu alayhi wa sallam annubuwata yonantu ga wa risaalatu ak ak ak leetar ba dégg nga ni Cheikh ni yonent bi mottalee nubuwatu nga xam ne ni amul waliyu yonentu buy xam may lu may ne si yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga ko jëlee moo tax bu sëyr ba mu koy tagg daf ne ko yow yaay jëntam ngëneel ñoom yonent ñooy biddiw yi biddiw weer la rek seetu la rek boo xam ne amul leer waaye leer ak jënt bi mu jàkkaarloog moo ciy tàppi moo am leer seen leer leeru yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi moo ci tàppi mooy seen sang waaye Cheikh Tidiane it mooy sangu wàll yi yëpp moom rek moo mos a woote maqaama boobu nag bi haadil xatmiya ci bi la tëj jim tëj wilaaya moom yonent bi wala moom Cheikh Tidiane saara ci la mujj xalifatan di xalifa li rasulullah ñu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Tidiane li tax mu nekk xalifa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que may yonent yëpp buy wàcc rek moom moo koy gé daag moo koy moo koy moo koy dékku moom Cheikh Tidiane waaye bàyyi li tax mu nekk xalifa Cheikh Tidiane mooy may Cheikh Tidiane yëpp ci moom lay wàcc ko xamati ji moom nga ko jële waxasala am na bi zalika ci loolu ala malil mamlakatil muhammadiya li nga xam ne nii nguur ak muhammadiya am na ko min makaasi bi ci ay fàgguwaay wa fadaayil ak ay ngëneel wa mazaya ak ay jagleel wa mahamid ak ay sant lépp lu nekkoon ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam daal xamal ne yàlla jox na ko Cheikh Tidiane moo tax moom rek moo mën a tudd ni mu tudd ilaa annahu lu moo ne Cheikh Tidiane nag laysa nabiyya bi sallallahu alayhi wasallam wax ne la li mu a wax rek mooy la yàlla yor yëpp jox na ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam diggante yàlla ko yonent ba différence ba mooy kii moo joxe kee la jox kooku mënul dégg nag nga xam ne mënoo ko dégg lii yonent bi am yëpp jox na ko Cheikh Tidiane seen diggante mooy kii mooy joxe kële la jox Cheikh Tidiane yor yëpp jox na ko Cheikh Ibrahima seen diggante mooy kii mooy joxe kële la jox loola waral yonent bi mën a nekk sangu nubuwat Cheikh Tidiane mën a nekk sangu wilaayatu Baye mën a nekk sangu xilaafatu nekk xalifa yàlla bi gën a mag nga xam na ni ku am may ci moom nga ko jëlee loola waral kii nekk borom sharia kii nekk borom tarixa kii borom nekk borom xaqiqa loolu nag dana ko gën a leeral wala maa kaana ba mu nekk Cheikh Tidiane radiyallahu anhu fi haadil manzila ci bi la wàccuwaay maxsuusan di kuñ jagleel bi haadil xusuusiya ci bi la jagle kallafahu ci la ko togg jëdduhu maamam rasulullah yonent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam bi muhimmati i'daadil ci coonaab wala boog ci liggéey yëpp préparé xeet bi fi ci mujj ak jamono al muslima gi aji lëndëm ba nga xamee ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy yàlla bi doon lépp lu jugee ci péeb yàlla ba moom la yàlla ci njëlbeenu mbindeef yi moom ak ña ko wuutu ñoo wàcc pour xettali xeet wi ci bokkaale gi gën a mag dégg nga ca mujj xeet wa yàlla wàccee fa Cheikh Tidiane radiallahu anhu ardaahu moom mi nga xam ne mooy xalifa yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour mu xettali nit ñi ci xol yi lëndëm yi Cheikh Ibrahima radiallahu anhu ardaahu moom it jug ca mujj mujj xeet wa xeetali nit ñi ci yëg-yëg yu lëndëm yi nit ñi de seen bopp lañ yëg bàyyi leen ci génne li maa yuraadu ngir lañ namu bihaa ci xeet bi min tawxidillahi ci wéetal yàlla wa ibadati ak jaamu ko wal ixlaasi lahu ak sellal ko wa muraqabati ak fuglu ko yàlla dafa bëgg ñu wéetal ko jaamu ko sellal ko di ko bàyyi xel wala waral njël benn xeet bi am na sang waaye mujj xeet bis am na sang bu mu fa taaj fa laqanahu mu sakoo tariqata tijaan yee tariqa tijaan si njëlbeen mujj xeet wi Cheikh Tijaan la yàlla teg mu wutu fa yonantu mu sakoo tariqa tariqu mahdil fadli wa ridwaani ussisa bi sunnati wal furqaani muy tariqa boo xam ne lu sell la mahdil fadli lu sell ngëneel la wa ridwaani ak ngërmaane gu sell ussisa fondement nañ ko bi sunnati sunna wal furqaani ak alquran tariqa la boo xam ngëneelam du lu ñuy fàggu waaye ngëneel yàlla joxe rek la loolu mooy ngëneel lu sell ngëneel yi nekk ci tarixa bi nit mënu góorgóorlu ba am ko waaye yàlla lay bëgg rek boole la ci ngërmaande gi ngay am yàlla gërëm la ko da nga jëlee ko ci tarixa bi du loo mën a fàggu waaye yàlla lay gërëm jox la ko tarixa la boo xam ne dañ ko fondement ci sunna ak alquran lépp rek لال قرآن قرم لا لسنة ينتهى على محمد صلى الله عليه وسلم قرم لا لول جبل نشيا ذا ودمنا مقارنت لون ين قدمانا توا أي قارنتم شخص يعني بكو ينتبه جو خير تاريخ بي دفكو قارنت بوك نتي قارنتي كيب كو جاب تاريخ بي يعني موم يني بوك دكتا جنتا كوي الجناي عليا الجناي جروم نتي الجناي بيجي جنا كوي جنتي فور gën cee neex gën cee taaru moo di illiyin mooy illiyin aljana ju njëkk ji wax nañ ne neexaayam ak rafetaayam toll na foo xam ne benn resin wala benn xuru ay ni bu génnoon baaraamam wala benn resin wadd daanu ci àdduna bi dana fay leeru àdduna bi ndax moo ko gën a leer jant bi dootu leerati te it dana fàttaloo nit ñi bànneex yi nekkoon ndax bànneexu resma boobu wala bànneexu baaraamu raay bi moo leen dàq luñ mën a amati ñaareel bi noonu la bu njëkk bi bu ci benn resin daar ci bu njëkk bi fay leeram aljana ñetteel bi noonu bu ñaareel bi bu ñeenteel bi noonu la bu ñetteel bi ba ci bu juróom ba bu ci benn resin daar woon ci aljana juróom ñaareel ba fay leera aljana juróom ñaareel leen bànneex yi nekk Cheikh Tidiane moom ak taalibe mi yonentu garante leen ne foofu la ñu war a dëkk dégg nga su ko defee nag bul déglu daf yi naan may ak ngëneel yonentu rekk ko mën a xam waaye ku dul yonentu mën a koo xam moom moom yonentu ko xamal ñaareel gis nañ ci alxuraan koo xam ne du ab yonent yàlla wàcce yónni malaaka yi ñu ñëw xamal ko ay may yu ko yàlla defal mu di Mariam وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين wax ko ba wax ko sax doom jim nar a jur ëllëg inna laaha yubashiruki bi kalimatin minhu smuhu almasihu isa bnu maryama wax ko ba wax ko daraja jëm nar a am mu ne ko wajihan fi dunia ba ci àlaxira nam war a mel wal axira wa min almuqarrabina ba ci garaatu doom jooju sax xam na ko kooku du yonentu yàlla waaye yàlla may na ko yàlla tànn na la moom xam na ne moom la yàlla tànn moo gën ci jamono moo tax bu wëlli waxee ne yàlla may na ma may sàngam nga naan ay loolu fu mu ko jëlee dangaa dof wëlliyu yàlla ubbi na bunt moom boo xam ni dana ko xamal loo xam ne nii mbindeef du fa gisee du déggee moo tax bàyyi bu waxee waxam ji léeg-léegi dafay wax ne kuy sikk ci lii may wax araabu asmahu min haytu laa yaral fata wala yasmahu maa ngi gis foo xam ne nit du fa gisee maa ngi déggee foo xam ne nit du fa déggee mu ngi lay junj laaj Chatiyaan yi loolu la ko yàlla garante bokk na ci garante yu ko yàlla garante ay taalibeem bu ñuy jéggi siraat ñi dañuy mel ni melax nit ñi mel ñi mel ni ay oto ñi mel ni avion ñi mel ni fas ñi mel ni mbaam dañuy dañuy kii nu mu tuuti dañuy dañuy gën a gaawante comme seen jëf yu baax yi waaye taalibi Chatiyaan ñoom malaaka yéen na leen seen mbaggee bu yàgg yóbbu leen ñoom duñ fa nekk di jégganti siraat ay melax ak ay nangam. ñoom balaa dara di xew ñoom romb nañ siraat ñoom ndax lan lu ko may loolu mooy doon gim doon yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa haddada mu limité loo ñeel ko awraaduha ay wirdaam wa azkaara ak ay zikram zikari wirda beeg lépp yonent bi moo ko tëralal Cheikh Tidiane ne ko nii la waaraahu mu woon ko manaahijaha ay yoonam wa asraaraha ay mbootam yooni tariixa bi mbooti tariixa bi lépp yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko wan Cheikh Tidiane dara umput ko ci nga ne ko yonentu boobu mooy kan wax na la bàyyi moo doonu lépp Cheikh Tidiane kon may gi ñu la wax ci taalibi Cheikh Tidiane rek ku ko raw mu ci taalibi bàyyi mu wax la kan mooy Cheikh Tidiane mooy moo doonu lépp yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye kan mooy yonent bi wa rasulullah yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam xalifatulaay moo huutu yàlla fi saayirin mamlakati ilaahiya ci mbooleem nguuru yàlla gi woowu moom muraadulaayi moom la yàlla bëgg min xalqi ci min defi yàlla bëggul kenn lu ma yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wal hadaf mooy jubluwaay bi min ijaadi mawjudaat ci amal mindeefi yàlla dafa bind mindeefi ngir yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mindeefi yëpp teraanga yonent bi la yonent bi ne moom la yàlla bindal boppam fa sallamahu mu jébbal yonent bi mahaamal xadarati yittey xadara ba pay ba wa qaranahu mu lënkale ko biha ak pee ba xiraanan ak lënkale goo xam ne ni yeliqu dana yellu bil qadaasatil ilaahiya si sell ak yàlla maanaam yonent bi du yàlla waaye lépp yàlla la jox na ko ko ba mu des maa yàlla loolu moom du ko wax waaye lépp rek yàlla jox na ko lépp lu ñu war taxa taxawee ci péeb yàlla bi yonent boo koy taxawee xarana lënkal na ridaahu ngërmaaneem bi ridaahu ci ngërmaaneem yàlla ne ngërmaane yàlla ngërmaane yonent bi mooy ngërmaane yàlla moo tax mu ne wallaahu wa rasuluhu ahaqu an yurduhu yàllaa kam yonentuum ñoo gën a yeewoo nga gërëm loo ko nga gërëm loo leen la waroon wax ñoom ñaar waaye daf ne nga gërëm loo ko ngir wane ne boo gërëm loo yonent bi rek gërëm loo nga yàlla boo gërëm loo yàlla gërëm loo nga yonent bi koo ci merloo merloo morom ko wattibaawu topp yonent bi bi tibaayi yàlla lëkkal na ko topp yàlla boo toppee yonent bi topp nga yàlla man itin rasula faqad ata allah ku topp yonent rek topp yàlla wa xubbuhu bëgg yonent bi bi xubbi muy bëgg yàlla wa taatu ak roy ci yonent bi bi taati mooy roy ci yàlla wa ismu turu yonent sax yàlla daf ko xotte bismi ci turu yàlla mu lay wane wa suqa xott nañ lahu ñeel ko mi ismi ci turam yu ji lahu pour mu màggal ko fazul arshi borom arash mahmudun kuñ sant la te moo di yàlla wa haza jaam bii moom muhammadun mooy muhammad muhammad mooy kuñ sant mahmud ak muhammad ñoo bokk fuñ jóge ñoom ñëpp ci hamdu lañ jóge yàlla bu mu tuddee mahmud ci melo turam la xottali yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam tuddee ko muhammad kuñ gërëm aw jadu amal la yonent bi minal mahabbati ngir mbëgg ci mbëggeelam yàlla amal la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci bëgg ko قال من فأحببت مبج أن أعرف أن يقم فخلقت مبين خلقا من ذلك يعني لفنا ما فينا يكون كان خمون ما خمون سمي ملو خمون سمي تور خمون سمي كاوتيف خمون سمي تار خمون سمي جلال مبج لول فين يخمكو تلا حمل يونتي الله محمد صلى الله عليه وسلم wata bëgg mooy jiitu ci leen lu nekk yàlla bëgg la njëkk def sax amal yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kum bëggoon yonent bi rek ba muy bëgg yonent bi rek la yonent sujjóot moom daal di xam te mosum ñàkk nag moo tax bàyyi wax ne yàlla dafa xamal dafa dafa dafa bëgg xamal lu xam ba pare te foowut léegi ku ne dafa xamal lu bees li xam ba pare lay xamal te foowut wa araada na mun a min haatal xalqi ci bi ne min an yu ñu wéetal ko yàlla ba ma xamalee yonent bi ci la ci yonent bi la mindee fi jóge lan la yàlla bëgg ñu wéetal ko lan mooy ñu wéetal ko moo ñu xam ay melokaanam xam ay taaram bañ koo bokkaaleeg dara xam ne moom rek mooy borom moom rek mooy kaam xam ak dëgg qaal yàlla ne ma xalaqtu binduma al jinna jinne wal insan nit illaa li yaabudooni lu moo ñu jaamuma la alquran ne yàlla nee na binduma nit ak jinne lu moo ñu jaamuma jaamu xam te wéetal yàlla xamut wéetal yàlla mënul xam te xam yàlla xamut moo tax Ibn Abbas mi dégg alxuraan yonentu ñaanal ko yàlla ne yàlla na ko yàlla may mu mën a taabi laa alxuraan Ibn Abbas daf ne jaamu yàlla li ci yàlla na moom mooy ñu xam ma yàlla dafa bëgg bind nit ak jinne pour ñu xam ko wala ibaadatu jaamu yàlla dafa wuteeg li shirki ñeel bokkaale jaamu ak bokkaale mënuñoo ànd jaamu yàlla ak bokkaale yàlla mënuñoo ànd jaamu dafa soreek bokkaale fa man lam yuwaxid ku wéetalul maabuduhu ka muy jaamu lam yaabudu du ko mën a jaamu yàlla mi ngay jaamu boo ko mënul wéetal doo ko mën a jaamu kon balaa ngay jaamu yàlla fa nga wéetal ko wa man lam yaarif ko xamul maabuduhu ka muy jaamu lam yuwaxidu du ko mën a wéetal boo xamul yàlla mi ngay jaamu doo ko mën a wéetal moo tax yàlla bu la waxee dama laa bind pour nga jaamu ma rek danga ci déggee daf laa wax ne dama laa bind pour nga xam ma ndax boo ko wéetalut doo ko mën a jaamu te soo ko xamul doo ko mën a wéetal koy xam door koo jaamu soo ko xamul doo ko mën a jaamu ndax boo bokkaale moom bëggul jaamu ko bokkaale mu nekk te xamu ko maanaam wéetal yàlla mu nekk ta xamu ko wala ma arsala léegi nag kon am na lu mu la njëkk a dafa bëgg nga dégg lan mooy lislaam lim na njëkk leer loolu mooy yàlla lan moo tax mu bind mbindéef yi moo ñu xam ko cool yi nga gis ne yëpp la yëngatoog lay dal yëpp yàlla bëggut ci li mooy ñu xam ko aywa léegi ban yoon lañuy jaar pour mën a xam yàlla moom la bëgg a faram fàcceel xam naa ne du mën a nekk ci benn waxtaan wala ma arsala ba mu yónnee allah wa ala rasuluhu yonentoom bi di leen xaq ci diina dëgg lii zuhiru fu mu kaweel ko diini ci diini kulli lépp yàlla yun yun ci yàlla Muhammad jox ko diine dëgg mooy lislaam mu war a kaw bépp diine jum fa fekkoon war a folli léppi caaxaan jaaxal dafa def xaasa diine bi la diine salaasa maqaamaati ñetti maqaama xam nga waxoon na la kan mooy Cheikh Ibrahima radiyallahu kan mooy Cheikh Tidiane radiyallaahu anhu kan mooy yonent bi radiyallaahu anhu xam naa yàlla ba mu wàccee lislaam ci yonent bi sax ñetti maqaama rek la ko def te wax naa la may ci yàlla du xam mukk lu may am na ku ko taxawee maqaama bu nekk rek am na boroom te borom bu ñëwee ñetti maqaama yëpp lay làmbu di ci liggéey waaye am na bu mu gën a fese diine ji ñetti maqaama la laa yasilu du yegg al insaan doomu aadama ilal kamaali diin ci mat ak diine gu raxul dara illaa bihaa lu mooy ñett yëpp mu dajale ko waaye ñett yooyu al islaam mooy islaam wala imaan ak imaan wala ixsaan ak ixsaan islaam mooy nga jébbalul yàlla nangul ko ne moom lañ war a jaamu bañ imaan mooy nga sellal yàlla sa xol say jëflanteeg say jaamu yàlla sa lépp yàlla rek tax ixsaan nag mooy nga nga dem ba nga xam ne yëgatoo lu ma yàlla ihsaan yëg lay dindi yëg-yëg bu bon iman jubluwaay bu bon lay dindi islaam gëm-gëm bu bon lay dindi su ko defee ñett yi la yàlla wàccee ci yonent bi sallallahu bal sax yonent yëpp ci islaam lañ nekkoon ñoom ñëpp yàlla ci islaam la yónni waaye nag réer gi tat na tat goo xam ne nii yonent bi bu wàcce loolu boppam rek benn yoon mission bi du normal ndax nit ku reer dang nga koy xeccali nang par nang loolu waral yàlla wàcce yeneen yonent yoo xam ne ñoom xamuñ yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye nag leneen seen yonent bi andil buñ ko gëmee yamal xiyaamati danañ texe yàlla na leen gërëm parce que ñoom ñooy lay taay pour mbir mi xegg fa mu bëgg a yegg noonu la yonent yi di ñëwee ku leen gëm rek texe muy tabax nank nank xeet wu nekk yàlla yónni fa yonent wala kulli qawmin haad kuréel gu nekk yàlla yónni na fi ak yonantu ba gëm yàlla ak wéetal yàlla ak risaalatu nit ñi miin ko yàgg nañ koo dégg mu ngi commencé sax ci xol yi yàlla ebal yonantu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nag fépp fu mu mosoon yónni yonantu rek yonantu bi yónni na ko foofu moom rek mooy yonantu bi xam ne si ñëpp lañ ko yónni waaye bu njëkk dañ loonu lay taayal nit ñi pour ñu miin wéetal yàlla bàyyi jaamu xiram yonantu bi ñëw moom oo nit ñi ci lislaam googu génne ci bokkaale gu magga te mooy jaamu leneen lu dul yàlla loolu mooy di lislaam gannaaw lislaam imaan tàllalu imaan lu ko tax a jóg mooy affaire xol tareexaloo rek tax a jóg defar xolu jaam bi ba li jublu ci jaamoom yi ci yëngatoom yàlla rek tax gannaaw ga ixsaan ñëw ixsaan lu ko tax a jug yëg-yëg dindi yëg-yëgu jaam bi ba moom taa su nekk dafay mel ne dafa jënoog yàlla yàlla rek lay yëg ndax ku jënoog yàlla du yëgati leneen gis ku jënoog yàlla ne la yëg ne leneen waxut dëgg yàlla boo jënoog moom mënutoo yëg leneen moom rek ngay yëg ixsaan nag affaire yëg-yëg la imaan it noonu la am na ay wëlli yu ñëw nank nank di joxe tariixa di joxe nangam tariixa nangam tariixa nangam ba Cheikh Tidiane ñëw gannaaw gi am na ay nit ñu ñëw di xaw a ñu ngi puus nañu ne ñaa ngi am fatu ñu ngi xaw a xam yàlla ba Cheikh Ibrahima ñëw mais kenn ku nekk sa mission ba nga ñëwee ci loolu nga fese kon diine ji ñetti maqaama la am islam iman ihsan bokkaale yàlla ñetti façon bokkaale la yëpp yonentu jàngal na ko ci hadis yu wér bokkaale gu mag mooy jaamu xërëm jaamu leneen du yàlla bokkaale gu ndaw mooy jublu leneen lu dul yàlla ngistal bokaale nag bi gën a nëbbu mooy yëg leneen lu dul yàlla islaam leneen tax a jug mooy bokkaale bu mag bi ñu dindi ko fi moo tax yonent bi doy na ko rek nga ne ashhadu laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jaamu woo xiram doy na ko xataa bu dee naafeq kenn dootu ko defat dara xam nga naafeq lu mu jaamu yàlla nangu ko waaye dañ koy boole ci jullit ñi noonu teewul mu ngi tàggat ay nit ci iman gëm yàlla am na ñu mu tàggat ci maarifatu billaay ba nga xam yàlla waaye nag foofu doonul mission bi ay nit ñoo xam ni xam nañu yonentu yàlla Muhammad sallallahu leen jaamu xiram ñu taal geer kooku kooku mënuñu rek fi nekk. du jamono boobu jamono jooju du jamono ci yar ci loolu. بوكنا شي إمام علي ندلانو حتى ينتي مشي بهم وخلنا بهم لا إله إلا الله وحده عز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده دمبنا دارا دارا دارا أمر لما يلا بولي مسيح المسلم شي تيري غنى بير لبوكو إمام نايبون كشرا دفن وخي ينتبوه فلا شيء بعده ما لا شيء سواه درهم ريال waaye loolu ñu ko mënoon dégg ci jamono jooju ñoo ko doon dégg parce que du mission ñëpp yonent bi boo mu génne àdduna sax am nañu murtat far mm. xam nga ñooñu yàlla rek maanaam jaamu leen yàlla rek sax moom gëmaguñ ko bu baax moo tax yàlla yàkkamti wut wa li kulli shay'in indahu wa kullu shay'in indahu bi miqdaar lu nekk dafa am jamono yonentu moo indi lépp waaye mission nu bu wëtu ci jamono yonentu moo doon dindi bokkaale bu mag bi mooy jaamu lu dul yàlla mm-hmm. bañ demee ba loolu samp nit ñëpp xam ne xëram baaxut yàlla rek lañu war a jaamu ñu ubbi buntu wilaayitu xooloo ko tax a jug wala yàlla yi ñëw di tàggat ci nga bàyyi ngistal ci nga bàyyi def te yàlla taxut del jublu yàlla sa jëf say wax moo tax Cheikh Tidiane sax daan na wax ne damay ñaan sama làmmiñ mais sama xol jébbalul na yàlla yàlla bëgguma dara sàkkuma dara defal lu la neex foofu la bëgg nga yegg pour raxas sa xol sa jubluwaay say jaamu yàlla rek a tax moo tax wilaayatu nanguwul naafiq booy naafiq rek bokkoo ci wàll yi parce que maqaama imaan la foo nga gëm mais islaam moom man ngaa nekk naa fekk ñu boole la ci biir jullit ñi kenn du xeex yow kenn du jël sax la jàppee la comme jullit fekk yow gëmoo sax mais imaan pour nga bokk jëf foofu sa xol set wala yàlla yi ñu ngi liggéey loolu maqaama imaan lañ ubbi ii nag ki nga xam ne mooy sang ba comme ni yonentu nekkee sangu nu bu wëtu mooy Cheikh Tidiane radiyallahu anhu amul kenn ku mos gis benn wali bu woote ne lépp lu jugee ci pay yonent bi ci moom lay wadd moom ci lay wali yëpp di tëbbee ku dul Cheikh Tidiane radiyallahu moom rek moo ne sama ñaari tànk yi mu ngi ci kaw bépp ndootu waliyu wali yëpp ci man la ñu naanee ci aadama ba ba ñu buftu bi maqaama boobu beneen wala yu ñu ngi ko woote ku dul Cheikh Tidiane radiyallaahu anhu mooy sangu imaan waaye ihsaan yonent ba mu koy firi daf ne mooy nga jaamu yàlla ba mel ni yaa gis maanaam yëg la sooy gis yàlla ni ngay mel sooy jaamu yàlla noonu ngay mel yow dañ la fay bind pour nga jaamu yàlla kon waroo nekk ci leneen lu mooy jaamu yàlla <laughs> doomu aadama bi xataa tëddam sax noppaloom sax jaamu yàlla la ci war a jublu dafay noppalu pour mën a wéetal yàlla booy gis yàlla nag la ngay yëg toujours del yëg loolu loolu mooy ihsaan ihsaan affaire yëg-yëg la kooku góoram xamul kenn ku yàlla xaw a may basiira tuuti xataa ñi añaan ñi sax xam nañ ne bàyyi mooy borom xataa ñi añaan ñi ndax ku fe ku fexe ba mën a jël àddina yëpp dindi seen yëg-yëg ba ñu yëg yàlla rekk kiiraay dañ seen digganteeg seen borom bali nga xam ne ni ñoom xam nañ ko sax waaye ñemewuñ ko ñu mën koo nangu kooku du kenn ku mooy Cheikh Ibrahima Tilala tarixa bi bëri na ay ponkal de ñoom ñëpp ñu ngi liggéey ci wàllu iman ci góor góori tarixa bi lañ bokk Cheikh Tidiane seen sang waaye ihsaan bëri na ay góor mais góoram bi nga xam ne mooy sangu ñëpp mooy Cheikh Ibrahima Tilala fexe na ba jaam yi di yëg. toujours ne ñoom ñu ngi jënoog yàlla wax naa ne jigéen jigéen ñi Zuleyxa yi bëggoon Yuusufa dagg nañ seen loxo yi te yëguñ ko ndax janoog taaru Yuusufa bañ janoog taaru Yuusufa yëgutuñ lu mooy Yuusufa loo xam ci ku janoog yàlla nag te yàlla dàq lépp doo yëg dara da ngay effacé wu nga mel noonu nag loolay ihsaan yonentu jàngale na ko sallallahu alayhi wa sallam kooku nag góoram gi ci liggéey mooy Cheikh Ibrahima radiyallahu moo tax diine ku ko comprendre rek doo sonn doo weddi tariixa doo weddi fayda da nga xam ne fii la jëmoon mais yàlla yàkkamtiwut dafay raxas ndab dañ koy raxas layangi ko door cee yàq ka raxas ndab li ak saabu mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ak yonent yi ka ko layangi nag mooy Cheikh Tidiane waaye ka ci yàq lañ ci soxla woon mooy Cheikh Ibrahima di laalu mu neex nit ñi mu naqadi la da ngay jël avion wàcc ci dëkk avion la mën a yóbbu ca dëkk ba de waaye pour nga yegg ca pale buur oto ngay jël waaye boo demee ba ci pale bi nag oto bi dugg ci biir da ngay wàcc sa jëmmu dugg ana waa ji mu ngi ci biir pale ba léegi moom bokk na ci dawal buur ya yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy avion ba Cheikh Tidiane mooy oto bi lay xeggale ca pale ba waaye bàyyee jëmmi pare ba moom dara jëre dana yàllaa ngi nii ñetti mission yi benn bokku ci ak sa moromam loolu moom mooy liggéeyam kon lislaam ñetti ponk la bokkaale ñetti façon bokkaale la ponk bu nekk am na bokkaale gum fi gum ci dindi gum fi dindi yooyu yëpp nag wala yi bu ñëw ci yëpp ngay liggéey mais ki nga xam ne nii lii mooy sama xaama ci ngay gën a fés dafay gën a fésee ci sa jamono kama fasaro comme nu mu firi hadis boobu jibril jibril fi hadis omar ci hadis omar mu ne huwa moom islam an tashada mooy nga seede an laa ilaaha amul benn buur bi war a jaam illallaa lu ma yàlla bàyyi leen xiram yi wax doo moom dong laa sharika lahu bu leen ko bokkaale bu leen jaamu yàlla di jaamuy xiram déedéet yàlla rek bu tuqimu salaat ngay julli pour lay taayal gëm wa tuuti zakat ngay jox asaka pour sa xol di raxasaale nga lay taayal gëm yàlla ci yow wa tasuumu ramadaana nga xoor weeru koor pour defaraale sa xol wa taxujul bayta nga aj kaaba ga in istataxta boo attine ilay jëm soo sabiran aw yoon boo mënee aji nga aji lii lépp pour tàggataale sa xol ba gëm yàlla mën ci tàbbi bu baax a baax wal iman iman affaire xol la kama fasaru jibril comme ni ko jibril firee fil xadis yi nafsi ci xadis ba huwa moom an tuumina billaahi nga na ko dëggal xol bi na dëggal yàlla ndax boo ko dëggalul doo mën def ngir moom doo ko mën a wuuti sax wa malaayikat yi nga gëm malaaka yàlla yi boo gëmee da gëm ne am na ñoo xam ne ñu ngi sa wet di bind danga bàyyi lu bon lii tilimal sa xol di def lu baax da xam ne malaaka yi dara yi nga def dara umpul la bu jëf ju ñaawee yàlla du ko bind da xam ne yàlla ngi lay boole malaaka yu lay garde te saa su nekk ba toujours looy def la rek tax wa kutubi bii nga gëm téere yi pour nga mën a jëfee di téere yi di la joxañ wa rasul yi nga gëm yonent yi pour nga mën a topp seen yoon ak seen i jàngale wa tuuminu bil yi nga gëm dogal pour sa xol mën a set lu xew nga ne yàlla paa mi ndef xayri yi dogal yu neex yi wa shari ak yu yi ak yu ak yu naqadi yi yëpp nga gëm ko loolu affaire xol la iman xole ixsaan ak affaire yëg-yëg la kon yonent dafa ñëw dégage bi jaamu leneen lu dul Cheikh Tidiane ak wëlli yàlla yi la leen tax a jug mooy dindi fi jublu leneen lu dul yàlla bàyyi nag li ko tax a jug moom ak ñu mel ni moom mooy dind fi yëg lu dul yàlla fóot yëpp gëm nañ loolu waaye ñemewuñ ko ndeysaan te buñ koy ñeme di nekk xéeféer léegi parce que amuñ ku leen dimbale amut fóode buy teg moromam bu njëkk yàlla rek moo fi nekkoon amut ñoom ñëpp xam nañu espace bu toll ni mbagg yoo nekkut fi woon ba fa yàlla rek di nekk du asamaan du suuf du dara xam nga ne réer rawatut koo xam ne ni xam nga ne moom rek moo fi nekkoon bu njëkk waxal ko boobam wal awul moo fi njëkk bu fekkee yàlla nekkoon na fi ab ab ab air nekkoon fa kon air boobu yàlla bind ko te yàlla wa xalaqa kulla shay'in moo bind lépp lu nekk foofu de yëpp gàggee mooy tay gannaaw tëjël li waaye balaa yàlla def tëjëli ñoom gàggu ñoom xam nañu yàlla rek fu nekkoon am nañu gàgg gàgg ba léegi yàlla ngi ci kaw asamaan toog xam nga réer rawatul loolu te xam nañu yàlla du wàññeeku du tuxu du jaxasoog dara gàgg hmm? gàgg boobu nag mooy war a leneen lu yàlla kiiraay yooyu bàyyi dafa ñëw pour dindi la loolu gàgg nekk sa bopp bi question yooyu ngay laajte te mun laa leer loolu la la bàyyi rek na la jàngal na lii mooy sama yoon ci xadis ci jàngale yi xam ñu ci yar waaye waaye borom a nga ñoom waxtu bu nekk nag ña fa nekk buñ góorgóorloo ci loolu rek texe nañ wa ixsaan ixsaan kama fasalahu jibril comme nu ko jibril firee fi xadis nafsi ci xadis ba huwa moom an taabudalaa mooy nga jaamu yàlla ka annaka taraahu ba mel ni yaa ngi koy gis affaire yu yëg affaire yu gis la fay lam takun taraahu boo nekkul di ko gis fay noo yaraak yàlla nga lay gis dégg nga boo yeggul ci maxaama di gis bu ihsaan gu gën a mag nga yegg ci imaan rek mooy nga xam ne yàlla nga lay gis nga def te yàlla tax lii affaire yu yëg-yëg la booy jaamu yàlla booy gis yàlla na nangay mel saa su nekk na nga mel noonu loolu mooy ihsaan wala maa kaana moom nekk ashirku bokkaale yàlla zulman aziman di tooñ bu mag bokale bi gëna toñ gi gëna a mag mooy bokkaale yàlla mom la yonentu firi laaya ja alladina amanu walam yalbisu imanuhum bi zulmin ñi gëm yàlla te seen gëm yàlla gi jaxasewuñ ko toñ kon xam nga ne am ñoo xam ne seen gëm yàlla dafa jaxasu jaxasoog toñ yonentu ne lu mooy la luqman wax doom ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim yow sama doom bul bokkaale yàlla bokkaale mooy tooñ bi gën a mag tooñ yàlla rawatul nga dem ba jëlee ko fi moom moo fi am yow nga xamal leneen moo nekk yow nga nekkal leneen nga war koo yëg moom kese yow nga yëg leneen nga war koo bànneexoo ngay bànneexu leneen mu jegele lool nga sorit ko lool tooñ nga ko tooñ mooy teg mbir fudul barabam bokkaale mooy tooñ bi gën a mag wa kaana nekk na ala salaasi maratiba si ñetti martaba wal axar moom ba tey shirkun jëliyun mooy bokkaale gu feeñ mooy bu mag bi woowu moom ittixaasu maaluhin mooy jàpp yàlla ma allah ak yàlla waaye baada si ak jaamu ko min duuni dem di jaamu leneen ba yàlla mooy tooñ bi gën a mag mooy bokkaale bu feeñ bi wa shirkun xafiyun ak bokkaale bu nëbbu woowu moom ishraakullaahi mooy bokkaale yàlla fi na baadati si jaamu gi wala amale ak jëf gi woowu moom maa yu sama mooy li ñu tuddee àndanaa fa ñun ariyaaw ngistal bokkaale bu ndaw bi mooy ngistal jaamu yàlla jublu leneen moom la mooy ci leen bokkaale bu ndaw ñu ne ko luy mooy ngistal ngistal nag mooy jublu leneen lu dul yàlla wala ngay jublu yàlla jublu ci leneen affaire xol la wa shirkun axfa bokkaale bi gën a nëbbu woowu moom tasawur wujudi mawjudin mooy nga jàpp xam ak aji xam maa lay ànd ak yàlla yaa ngi yaakaar ne yàlla ngi fi keneen nag fi ñaari hadis yëpp ñaari ñetti bokkaale yëpp baatu laa sharika lahu dàq na ko laa sharika mooy xamul benn xeetu bokkaale lahu di ko ñeel yàlla bu leen ko bokkaale ak dara ñun ñu bañ a déedéet dañ jaamu xërëm ga waaye nag moom ni mu xamee la ñeneen ñi xamee melaw yàlla xam rek boobu bu ko jéem a xam te yàlla dafa bokk see melokaanam wujjuudu xam yàlla mu nekk mawjuud yow ngay nekk mawjuud moom la Cheikh Tidiane wax bu fekkee yàlla ngi fi yow yow yaa ngi fi fa sama ismaani fay na tawxid ñaara nga foofu ana wéetal yàlla hmm. bokkaale bu nëbb bi moom la yonent doon wax saxaaba yi bokkut a ngistal ne bokkaale si sama xeet moo gën a lëndëm xorondong wu ñuul di dox ci guddi gu ñuul ci ab doj kenn mënu koo teg bët xam nga nan ngay def ba bët mooy jant bi ne tell lëndëm nga dem boo bokkaale bu ndaw a ndaw bi fekk génnoo ci doo ko xam dafa nëbbu waaw boo ci génnee la nga xam ne ah ndekk lii bokkaal la ndax bàyyi bu la dimbalee ba nga yegg ci yëf yi doo wax ah ndekk ndekk lii la loolu la ngay wax kon ñetti bokkaale ñoo am guerre yi mos a jug yépp dindi fi ñetti bokkaale yi moo ko taxoon a jug yow nag bi la yàlla dimbalee ba ci xolu mbir ma nga fekkee ko waaw sant yàlla de yonent bi saxaabaam ya sant nañ yàlla waaye yow yàlla boole saxaaba yi bàyyi sant yàlla taabiin yi mooy ñi gis saxaaba yi sant nañ yàlla waaye ñun bu ñu yàlla boole ci taabiin fayda bi dañuy sant yàlla ñun buñ gis nañ ko gis bàyyi ñoo ñooy taabiin yàlla de jamono bii jamono bu rëy la de bu leen yaakaar ne xewal fële li tax yàlla doon bind aadama li tax yàlla toj affaire yi li tax yàlla feeñal feeñuwaay yi li tax yonent yi wàcc wëlli di wàcc geer di tàkk mooy nit ñu yegg fii xam seen borom yow nga fekkee jamono jooju su ko defee kaana nekk na kon di war ala maqaamaati diini salaasi si ñetti maqaama diine yi an taqtaa ñu dagg daabira haasa si gannaaw yi la ñett ashirki yi ko bokkaale ñetti bokkaale yi maqaama bu nekk rek dafa war a dagg benn حتى يتم بمت مت بمنا مت توحيد الله ويتلي على حسب مراد الله إنك يلا بقي سكينة كشخول نيداي فكان كون ورنا على الخليفة على خليفة الله الأول شيء خليفة يلا بنجكبي وهم رسول الله مويل تعالى صلى الله عليه وسلم أن يسلم مدلي سيف التوحيد جاسك ويتلي على رقاب الوسنيين تدق جامكة قرمي والمشيكين أبوكا لكري الذين يخمن كانوا نكون يحتلون دي نط الساحة jamono jooju maanaam barab boobu wayam la una ñuy feesal alfaraaxaata ya féex yi ñoom ñoo feesoon tepp si suuf si moom moom jaamu ko xërëm yi fa kaanat mu nekk al inaayatu sonneega man sabatan di déngas ak ak ak nomba tànk wala ak sampu wala ak coono fi maqaamil awal yi ca maqaam bu njëkk ba mu nekkoon ndomba tànk la tatxiril xasirati ci laabal ngédd la wa ilaali kalimati tawxid ak feeñal baatu wéetal yàlla su ko defee xalifa yàlla bu njëkk bi mooy yonent bi ak mboolem yonent la leen taxoon a jóg rek mooy dindi fi jaamu xelam samp fi yàlla rek mooy mooy borom ndax nit ñu foofu lañ toll gis nga loolu rek daj na co laaj na coono bu ne fa salla mu génne asayfa jaasa ji ala riqaabi ci doq yi wa qaala mu ne qul la ilaha illa allah mu benn wur ñu war jaamu muhammadul muhammad rasulullah yonent yàlla aw tufaariqu dunya wala nga tàqal koo àdduna lii la yonent wax gëm rek mbaa dee wa ida qultaha boo ko waxee fa salli jullil wa sum wa waral wa zakki joxal azak wa xajji ajal wastaqim nga jub kama umirta comme nañ la ko diglee wa jaahid nga jihaad wa anfiq nga dundalee wa kun na nga nekk bisrata xayrin di jiwab xiw yatawazzau goo xam ne dana teqali koo xanaa ci moom alaaful buzuuri junnee jiw nekkal koo xam ne da ngay baax fexe ba junnee nit baax ngir lan ngir waajalaale gëm yàlla gi ñu bëgg mu dugg sa xol balaa ihsaan di ñëw wa kun nekkal labinatan di mool salimatan bu mucc wa qawiyatan di bu dëgër fi sarxil mujtamai ci tabaxu euh, société al muslim goo xam ne jullit lañ al qawi ji dëgër al mutamaasik gaa ji jàppante fexeel yow nekk kenn ci tabax boobu ci ñi nga xam ne yaa tabax lislaam ba mu dëgër pour nit ñi ma a yegg ci maqaama imaan am ñu ñëw tabax iman ba mu dëgër pour nit ñi ma a yegg ci maqaama ihsaan maqaama bu nekk am na sang sang ma nag boo xoolee rek xam ko waaw sang ba yàlla dana ko feeñal feeñal goo xam ni jëru sax tegtal wa kayfa yasixu fi l azani cheyun ida xtaaja nahaaru ila dalili naka lay dara di ci xol yi bu fekkee bëccëg aaju na tegtal lii mooy xalifa bu njëkk bi dina fi bokkaale gu mag mooy jaamu leneen lu dul ثم أسند مويت إلى الخليفة الثاني تي خليفة بن عربي هو الشيخ تجاني مو الشيخ تجاني لانو مهمته يتم الطريقة ولا بق مهمته الطريقة يتم طريقة ليجسد مجمل ثاني مقامات الدين نيارل مقامات الدين هو الإيمان ما يقم يالله موتا القرآن جنينكو القرآن جنينكو ومن يكفر بالإيمان كويت دي إيمان فقد حبت عمله موتا إيمان مقام نكو جمو دي دنيا دي كشنو ومن يكفر كويت بالله تي يالله ku weddi bi rasulihi waaye fii def ne ku weddi bil imaani kan ma imaan gars yi ba xam ne am ñoo xam ne ñu ngi koy jëmee firi ñu ne imaan mooy koo xam dafay daganal lu dagan di xaraamal lu xaraam mooy weddi yàlla waaye def ne ku weddi imaan sa jëf yëpp mooy lu koy firi mooy xadis ba ku ma noonawal sama wëli yu ma déclaré la guerre ku yàlla déclaré la guerre sa dara du baaxati Cheikh Tidiane moom maqaam boobu tamhidan mu laytaay li saalisa ñeel ñetteelu maqaam bi wul ihsaan iman dafa ñëw pour raxas xol yi pour nit ñi mën a yegg ci ihsaan teewut yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñetti maqaam yëpp mu ngi ci doon liggéey waaye islam mooy dindi jaamu xelam moo fa gënoon a fës Cheikh Tidiane ñetti maqaam yëpp mu ngi ci doon liggéey waaye dafa gën a mooy fexe ba nit ñi xam yàlla wéetal yàlla di ko tudd bëgg ko lool mu gënal leen lu ne bàyyi ñetti maqaam yëpp mu ngi cee liggéey la ci gën a fës nag mooy nit ñi xam seen borom huwal ixsaan maqaam yi tamit mooy ixsaan al mudaxar gañ dencal dawruhu róolam li xalifatil jami ñeel ki nga xam ne moo wuutu ñoom ñëpp saaxibil faydati borom faydu bi al mutaaxir moo mujj al mutaqaddim moo jiitu moo tax mu ne wa axarani dahri wa rabbi taqaddama fa sirtu jahulan hiina rabbi ullima fa diddun bi diddin xayyara al aqla fa ajabu li tawxidi rabbin hiina awjada adama ay waay wax ju wax ju wax ju sell nga waa xaranii mujjee na ma dahari sama jamono sama jamono moo tax mu mujjee ñëw waaye wa rabbi sama borom moom taqaddama jiital na loolu nag neexul xam jamono moo tax mu mujj ñëw waaye nag maa fi jiitu de fa sirtu ma mujj jahulan di réer xiina ullima bañ xamee rabbi sama borom ba ma xamee yàlla laa réere lu dul yàlla fa diddun safaan bi diddun safaan xam réer xayara laqala loolu réeral nag gërëm loon fa ajabu yéemu leen li tawxiidi rabbin ci wéetal borom boo xam ne xiina aw jada ba mu amalee leneen adama koo ñàkkal yàlla lu mu amal ñàkkal na ko wala du am bokkaale mukk loolu ku ko mën a dégg yooyu moom la lay bàyyi di gàggantil loolu rek mooy roolu faydu bi moom mooy sangu pay bu maqaama boobu moo tax ku bëgg yàlla mënoo bañ yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te sa ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foo mu foor waye ku bëgg yàlla mënoo bañ Cheikh Tidiane sa mbëggel si Cheikh Tidiane fo mu for ku bëgg yàlla mënoo bañ Cheikh ibrahim dilanu sa mbëggel Cheikh ibrahim fo mu fo mu for bo bañé bo bëgg yàlla nga bañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme nuko nasrani defé yàlla dàq na la la defal lu neex waye da waye nga bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam bañ Cheikh Tidiane yonent bi soxlawul la dara nga bëgg Cheikh Tidiane nga da nga bañ Cheikh ibrahim شيخ تجاني سهلة أرون دار جوتي ولين دار نملا يهودي ده هون يعني نم سبي سبي ميكائيل لين وارد نم بن جبريل يلا نلين بعند نونو جبريل عند نونو ميكائيل يلا صح نيو نونو لين فر نيو نيو نيو بوكو لجي فكان منك دور صاحب الفائدة رول برم فائدة بالتعميم الإحسان ومثل جم إحسان بايرول ما يفرق بإحسان مت ما تحمونه لم والأمة قصدي an asuuqahum ila xadrati lbarri rahimi naa xeet bi mooy sama jubluwaay li ma soxla ci ñoom mooy xamal leen jëmee leen ci pépp yàlla moo tax boo xoolee sax shaxsiyaan dafa niroog yonantu ci côté mais yàlla yi bari nañ de waaye ku nekk dafa mel ni dafa am ñu la yàlla booleeg ak dëkk bu yàlla booleeg shaxsiyaan addina yëpp la ko yàlla booleeg bàyyi it wëli yàlla yi bëri nañ de mais gis nga wëli yi bu nekk dafa xaw niroo ab yonantu dafa am dëkk bu ko yàlla booleeg ak nit ñu ko yàlla booleeg ak jamono ju yàlla booleeg bàyyi àddina yëpp la ko yàlla booleeg moo tax taalibe boo xam ni du sénégalais dëkkut fi xamut fi déggu sax langue bi juddoo feneen sëriñam dëkk sénégalais ñaaree rek taalibe bàyyi lay doon ku nekk dafa niroo kam doon ومم إحسان أن تعبد الله وإن جامع الله كأنك تراه بمن لي أنكو يجس وأنت يو حقيقة جدك دق لا ترى جسو الله يلا دو جس كون الله يلا إذا إذا إلا إذا لم ترى لمي عندما خم جسو تو شيء عند غيره لمي بما في ذلك رأي أنك شيء كه لين خان مونك تيجي جس جو ونفسك موسى بكن فهم عندما بجس تو سبب يجو تو سبب غدورة من جنوا يلا فهذه الأدوار رولي متكاملة لمطلع yii mooy rôle yu mat yi sharia tudd xelu ko daf lay dugal xasiratal ubudiya ngéddal jaamu yàlla wa tariqatun tariqa tu hayyiwu dafay préparé qalbaka sa xol bi li taalluqi pour mu mën a aju billaahi ci yàlla wa xaqiqatun xaqiqa tarmiika daf lay sànni fii baxri tawxidi ci géej ak wéetal yàlla xataa lam yabqa ba du des la ka ñella wujudun am moom lay bàyyi di wax ci bayti ba ne jamu shariati ma tariqati ila alxaqiqati al ural watiqa jamu shariati dajale sharia ma tariqati ànd ak tariqa ilal xaqiqa jëm ci xaqiqa alxural wasiqa loolay buum ñu dëgëree moom la yonent bi junj ci benn hadis ne sama jaam bi yàllaay waxal boppam sama jaam bi jegeñ loowut ma liggéey li ma farataal ci moom kon farata yi pour jege yàlla la moo tax lislaam moo gën a foor waaye mu ne sama jaam bi du deñ di ma jegeñ la ci ay naafile bu ma bëgg ko kon naafile yi mooy tax yàlla bëgg la tariixa la lay junj rek waaye junjul la ko sax la ko wax mu leer bu fekkee yaa ngi dégg waaye mu ne sama jaam bu mu ko bëggee maay nekk noppam nekk bëtam nekk tànkam nekk loxom maanaam maa koy nekk ndax yàlla du dagg-daggee nekk lii bay la beneen riwaay moo tax am na si riwaay ñoo nettali na fayda tu kuntu su ma ko bëggee nekk ko foofay xaqiqa ñetti état am farata yi waaye du la yeggale ci yàlla de naafile yi nga xam ne farata yaa ko gën naafile yooyu ñooy tax yàlla bëgg la waaye bu la yàlla bëggee boo demee ci naafile yi ba dëgër ca fa ngay xegg rek mooy xaqiqa yàlla nekk la bu yàlla nekk ne da nga xam nu yàlla di nekkee jàmbi waaw loolu du luñ mën a firi looy mën a yëg la su ko defee lii la xadis bi di di juñ wax na ko ni waaye problème bi mooy ba léegi ñu bëri dégguñ lan mooy lislaam ak lan moo ko tax a jóg moom la bàyyi mooy ni jëmu shariati ma tariqati ila alxaqiqati al oral wathiqa moom la bàyyi wax tamit ci wasila bi mu wax lan mooy wasila wasila mooy la la yeggali ci yàlla bàyyi na wasila ñetti étape la bu ci njëkk mooy topp yonent bi ci wax ak jëf mu ne moom la yàlla wax ci alquran qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabiuni yuhibbukum allah baatam bu neex ba comme baatu yonent ci yàlla daawud alayhi salaam baa nga woo xam rek nga déglu ko muy fiiri alquran bu ngeen bëggee yàlla topp na yonent bi ci waxam ak jëfam mu ne bu mooy bu njëkk bi mu ne wasila ñaareel bi mooy tudd yàlla moom la yàlla wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil bilghadaati wal ashi yuriduna wajhahu na nga muñ baan nag ñi nga xam ne dañuy tudd yàlla suba ak ngoon lañ bëgg mooy jëm yàlla ji loolay tariqa tudd yàlla suba ak ngoon sa xol dara ne ku ci lu mooy yàlla loolu lay tariqa di liggéey bàyyi ne wasila ñetteel bi nag mooy xànd ak ku xam yàlla moom la yàlla wax wattabi sabila man anaba ilayya toppal yoonu ku dellu ci man suma ma ilayya marji'ukum su yéen ñëpp ci man ngeen jëm ba xam boo xegg ci mooy topp yoonu arif billahi mooy ñetteel wasila bi daf koo junj rek daf laa bëggoon a wasila bu njëkk bi mooy xaw si yoonu yonent bi wasila bu ñaareel mu xaw si yoonu Cheikh Tidiane wasila loolu alxuraan waxee gis nga ni ko bi waxee gis nga ni woo boo bëggee mucc وما أن كل هؤلاء الخلفاء عندك نية خليفة يب خليفة لله خليفة يا الله في سائر الحضارات تيمبولم بي يرن تبي خليفة يا الله سيجا منهم في الإسلام في إيمان في إحسان نية من كل شيء وعليه تجعل في اسمه الإسلام إلى أن كل حضرة لوين بيب بي من حضرات الله يشبه بي على بي مسلمة من بيت من بيت لخليفة نيل بين خليفة من خلفاء الله يخليفة يا الله نية حضرة يب إسلام أمن خليفة يا الله بكوت إيمان أمن خليفة يا الله بكوت إحسان mu yëg yàlla am na xalifa yàlla bu ko wut waaye ku ñëw ñett yëpp da nga cee liggéey mais sa maqaama nag ci sa jamono lay gën a feeñee moo tax yonent sallallahu alayhi wasallam taxaw ne di walaaj Omar ibn Khattab xam nga maay kan man maay ki nga xam ne man la yàlla njëkk a bind mos juutal yàlla te yàlla bind bindagul benn mi def mooy puugare woo yonent bi kooku Muhammad ibn Abdullahi la waaye ba muy junj maqaamam la junj Muhammad ibn Abdullahi bi escalier la pour nga yegg ci maqaamam yonentub dëgg-dëgg ba comme ni nga xam ne alxuraan ji escalier la pour nga yegg ci alxuraan dëgg-dëgg ji ba Cheikh Tidiane bi mooy escalier pour nga yegg ci wilaayatub dëgg-dëgg Cheikh Ibrahima mooy escalier pour nga yegg ci xilaafatu dëgg-dëgg ba ñii nag si seen jamono maqaama wilaayatu iman ci maqaam jamono Cheikh Tidiane dana ci fes lool maqaama ihsaan si jamono Cheikh Ibrahima dana ci fes lool maqaama islam ci jamono yonent bi dana ci fes lool ñoom ñëpp benn liggéey la dafa continuer fa kaana nekk na li sifaati ñeel melo yi xalifatu xadratiha xalifa péem wa kaana li asmaa ñeel tur yi xalifatu xadratiha xalifa péem wa kaana li zaati ñeel jëmmu aljaame gaa boole li xaqaayiqil asmaa ñeel dëgg-dëgg tur yi wa sifaati ak melo yi boo xam yu bu dana dëppoo jamaa dajale loolu hmm? وهو الذي ما كان قمنا أسن الريال إلى يمسوما خلافة أحمد يا خلافة أحمد والخلافة محمد يا خلافة محمد يا والرب وعيالا واحد كان والعبد جانبي واحد كان لأن كل من خم وكل من خم يلا بين يلا جانبي بين جاملة سبحان من أخفى من أخفى الشؤون حكمه لكي يباين الحظوظ الجمة سبحان من أخفى الناس لبكن بنا الشؤون بري حكمه أتيم بري li kay yu bàyyi na ngir mu wuutee alxusuusa maqaama yi ak cër yi aljëmma yi aji su su yëpp feeñoon dàng ñëpp di benn yàlla dafa bëgg nit ñi rawante moo tax mun na gumbiri yàlla ñu yàlla may dégg ak gindeeku mu ne wala qad kachaftu laka alxitaa fa in takun fatinan arafta wa maa xayaaluka taarifu wala qad kachaftu wuññi naa laka ñeel alxitaa muuraay gi fa in takun boo nekkee fatinan di am xel عرفت خم قال لي ما بقوا وما إخالك يا كارو مرة تعرف إنك خم يعني ولا في بنت في جاه قلوا عني مفوف بمن يريد الإسلام استطعت ما توفيقي إلا بالله ويتوكلت عليه ونيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته